jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité ancien ministre Farba Senghor mi nga xam ne moom mooy euh, njiitul mouvement mbooloo askan wi les libéro euh, républicain mu bokk ci mouvance présidentielle maanaam benn Bokk Yaakaar maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu si Abdou Khadre di la gërëm bu baax ci prier bi nga xam ne prier nga moo ko fi. di nuyu waa réew mi FM ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. waaw euh, monsieur le ministre li nga xam ne moo gën a fës ci actualité bi moom mooy euh, ki nga xam ne tey moom mooy maître Juan Branco nekk euh, avocat Ousmane Sonko mu def conférence de presse daal di wax ne dafay yóbbu tey njiitu réew mi ak kilifa yu bare bari tudd na leen lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar. nee na tamit euh, am na lu toll si euh, ñeenti junni yu fekk juróomi téeméer <clears throat> ci ay élément de preuve yoo xamante ni tey euh, bokk na si lim jébbal cp yi ak ay pages yu baree bare tamit yoo xam ne jébbal na leen ko loolu lépp nag aju ci manifestation yi nga xam ne moo fi xewoon 2021 ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ak événement yi nga xam ne tamit moo mujjee xew ni ci bi ñu daanee Ousmane Sonko euh, ñaari euh, ati kaso ba tey ci mbiru euh, Adji Sarr loolu ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bu ci am mooy Juan Blanco ak Sonko ñaar ñu bokk àtte la que Sonko du hasard moo tax mu dem seeti koo xam ne dañ ko tëjoon dañ ko jàppoon pour yàkkataan Euh, di ko ko toppi justice en France mooy Juan Branco dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa demoon mu mu sàkku ko bi mu ko sàkkoo euh, ñu yóbbu ko ci yoon euh, mu ne moom xale bi dafa nangu moom bi mu koy laal donc. moom donc violé wu ko donc loolu moom moo tax xam naa ne Ousmane Sonko xam ne comme kii duggoon na ci mbiru viol ba pare génn génn ci kooku war na mën a nekk kii am avocat ba pare. xam nga moom dafa bokk ci extrémiste yi c'est-à-dire ñi nekk France ñoo xam ne euh, dañu wuteeg trop ñi fi nekkoon bu njëkk ñoom de Gaulle euh, ñoom François Mitterrand euh, ñoom Giscard d'Estaing ba ci ñoom Sarkozy ñi ak Valéry Giscard d'Estaing ñoo ngi ñoo ngi setee leen foofu ci ñoom laa jëm ñooñu mm-hmm. ñoo ngi setee la France te la grande France la ñi mënti daal noble France yi mais ñi ñëw léegi mooy ñoo xam ne des extrémistes lañu mooy ñoom euh, ŋàññ euh, ma ne doomu aadama def violence euh, lakk ay kër yi yàq soo gisee France manifestation yi nga xam ne am na ko fa gilets jaunes yi fi am ak manifestation yi nga xam ne ñoom Mélenchon dañ ko def toujours ñooñu dañu nekk ñoo xam dañoo feggu dañoo feggu ndax ñoom la nit ñi gën a gën a gëm ndax ñoo ànd ak violence ñoo ànd ak xat-xat te xam nga monde bi léegi violence taxawaay donc loolu daf ko bokk nag ak ki nga xam ne moom mooy Sonko mi nga xam ne dañ ko jiñoon fii viol dafa ñu dafa violé Adji Sarr dem sàkk ko tëdd ak moom. Euh, ci lu leer. waaw mais tëdd bi moom lu leer la moom tëdd naa ak moom Euh, taan ko. mais yoon waxul loolu. yoon loolu wax yoon na neen yoon nee na. tëdd yoon da ne euh, accusé wuñ yoon da ne tëdd naa moom yoon da moom moom euh, tëj ko ci li nga xam ne. moom mooy corruption de mooy yàq ndaw jigéen kon dafay yàq ndaw ndaw jeunesse mooy ndaw. corruption mooy nga yàq ndawu jigéen c'est-à-dire ni ñu nga wax ci àll bi su benn jigéen nga nga fëkk yàq loolu la tëjee Euh, ki nga xam ne euh, moom mooy Sonko mais du dañ koo bàyyi pour viol te soo ko seetloo sax dafa mel ni moom dañoo wàcc mbir ma pour bañ ko tëj 10 ans moo tax ñi ko doon àtte wàcce ko ba indi 10 ans mais quoi quoi qu'il en soit euh, lii xew yi yëpp li ko waral mooy dañ bëgg a xoqatal réewu Sénégal parce que soo gisee ñoom Sonko ni ñuy doxalee at yëpp ay wax yu ñaaw ji ay lakk yi. Euh, di saaga gendarme yi surtout généraux yi di saaga ñi nga xam ne ñoom ñooy juge yi di saaga président de la république ak ñi jigéen jiite institution ak ministre yi loolu ci ci xuppaate la mais euh, Juan Branco xam na ne moom mënta yóbbu Sénégal yi ndax CPI dafa am yoon euh, CPI mooy cour pénale internationale ñett nit ñoo fa mën a yóbbu nit kenn ki mooy les états états yi nga xam ne ñooy signataires ñoo signé woon li ñuy wax traité de Rome te réforme ñu ko si signé en 1998 mu dugg en vigueur en kooku état yi ñoo xam mën a yóbbu nit wala boog euh, le conseil de sécurité des nations unies kooku ci ndigalul nations unies conseil de sécurité moom fa a yóbbu réew te réew lañ fay yóbbu ensuite troisièmement euh, muy ki nga xam ne moom mooy procureur bi lan nga mën a def nag ba ñu ba ñu yóbbu la fa loolu ñetti ñetti ñetti mbir rek moom moo def pour ñu yóbbu mën la fa yóbbu euh, benn mooy crime contre l'humanité mooy cest à nga nga def ay ñaawteef yoo xam ne eh, dafa jël sa réew donc humanité bi nga xam ne ñoom ñëpp nga ko def beneen bi mooy ay ay crime de guerre ñaari réew yuy xeex ngeen ngeen def ay ñaawteef rey nit yu ñaaw toroxal fa ay prisonniers wala ngeen fekk ñoo xam ne ay civil lañu ngeen yàq leen ngeen gaañ leen loolu moom loolu moom mooy loolu mooy li nga xam ne moom mooy deuxième bi mooy crime moom mooy crime de guerre. donc su fekkee ne du ak génocide comme la amoon Rwanda. Mhm. ñu ñëw fekk ay nit ñu bëri ñu di leen rey ah euh, Rwanda xeex ba fa amoon gis ñu rey ay nit ñu bëree bëri. Mhm. ñett yooyu moo tax ñu mën fa yóbbu nit te ñett yooyu ñëpp xam nañ ne. am amul Sénégal beneen. mais Juan Branco moom nee na article 15. nee na article 15 may na kenn ku nekk mu jël wut ay éléments dem jébbal ko. Euh, dugal ko bureau euh, procureur spécial bu CPI. voilà procureur euh, CPI ay ay nit mënuñu ko saisir état la parce que mbir mi mbirum état la xam dafa bokk dafa bokkul ak ay droits de l'homme ak conseil des droits de l'homme comme fi ñoom Karim demoon loolu bokkul lii réew yi moo ko moom nation yi moo ko mais xam lañu jublu mooy yàq deru Sénégal ba Sénégal dootu jël dara ci réewu Europe yi ci France ak ci àdduna bi ñu ne waaw dañ fay dañuy rey nit te soo ko seetloo sax liste la def est-ce que yow si diggante ak yàlla ñuy tudd fii ay haut commandement de la de gendarmerie ay commissaire de police yi ñuy tudd ak ministre yi ñu ko tudd ak nit ñi nga xam ne kenn ku nekk liste nañ la ci ak industriel yi ñu ko tudd yoo xam ne ñooñu ils n'ont rien à voir. ak ak ak li fi xewoon mais moom am nay preuve. non preuve moom ay wax la rek parce que mën nga yóbbu di tribunal après ne am ngay preuve fekk preuve yooyu daanu la mais li am ba ba ba wóor mooy mbir mi nga xam ne moom moo xew. ah dañ bëgg a yàq deru Sénégal yàq aussi ma ne delu président de la République tëli duuf bees yow ki ci ci temps Ablaye Wade yow gis nga fi ñoom ñoom ñoom ki ñoom Assane Dioma Assane Dioma Ndiaye euh, ñoom Seydi Gassama euh, ñoom Alioune Tine mais lu nekk lañ doon wax te boobu ñi nga àndoon ak ñi nga xam ne ñoom makite ñoo ñoo ànd lañ wax ju wax ju ñaaw ju nekk mosu ñoo dénoncé loo xam ne dafa jëm ci li nga xam ne moom moo ñorol moo ñorol Sénégal man bu ñu lakkee sama kër yi yow déggoo ñett ñooñu ma la tural yëpp ku ko ci dénoncé parce que ah, ah, ngi wax ne euh, Ousmane Sonko euh, ñi mu àndal dañuy euh, yee fitna dañuy taal mais est-ce que lu lu fi bees la ndax yow yaa ngi wax ne sa sax taaloon nañ ko fi. waaw xam nga nag Sénégal dañu war a bàyyi am na lu xewoon démb am naa droit def ko su dee loolu la justice du am. su fekkee ne am na ñu def lu ñaawteef man bañ ma ko lakkee samay kër dama taxaw ma dénoncé ko dama taxaw ma dem tribunal ah, euh, maître Ousmane Seye yàlla ko yàlla yërëm mooy sama avocat ma déposé auprès du procureur ba léegi mujjul fenn te tey la 23 juin dégg nga mujjul fenn donc mais nanguwuma lañ doon def état ñuy continuer. du ko def sama état moom moo tax may xeex mais li xew ci Sénégal yëpp xam ne ñoom dañuy coow pour retourner <coughs> situation bi. mais nii nga gis sonk di ko opposé. bi ngeen di nekk ci pouvoir bi nii lañ leen doon opposé. déedéet xam nga Sonko Sonko li muy def affaire yu ñaawteef moom la jiital parce que soo nee kaay leen da leen jaral seen bakkan ñu woo la yow ne la kaay nga am problème yaa benn jigéen muy aji saar nga ne da leen jaral seen bakkan kaay leen dem ngeen dee su seen yaay juree su ngeen dee ma ne seen yaay seen yaay juraat. ne loolu xale ya koy wax waaye wa d' accord moom moo ko wax rek moom la xale yi wax xaw ma ci mag moo ko wax gémmiñam la ko la ko dugal c'est-à-dire bàyyi leen yéen euh, ngeen di nekk avocat Sonko Sonko moom nekku fi moom moo ko wax Sénégal yëpp dégg nañ ko mais dans dans quelles conditions la ko waxee ak lu mu ko waxee li ci leer ba leer moom Sonko si boppam moo ne xale yi ku ci dee sa yaay juraat moo nga xam ne ñun doomi baykat yi jógee ci àll bi ñoom ñooy perte doomi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk alors ci banlieue bi ñuy dee ñooy perte man naa ci toujours benn xarit boo xam ne jabaatam dee na si euh, mooy tailleur boobu ñu reyoon Cambérène mbokkam yi gisatuñu kenn mais soo ce qu'il a fait extrêmement grave loolu lañ bëgg suul le fait mu taxaw ne kaay leen dem xeexi rek mu jë ñu jëlee ay nit yoo xam ne dañ leen jëlee ñu ne Guinée Bissau ak ñoo xam ne dañ leen jëlee ñu ne ci rébellion lañ bokk ñu gis leen ci digg Dakar yi ñu yor ay jaas yi ñu yor ay sémmiñ ñu yor ay fedel ñu dugg biir Dakar ñu gis ñu ànd ak manifestant ak manifestant yi ba am ci ñoo xam ne euh, ñàkkul na ñoom ñoo rey manifestant yi mais loolu la sonk bu ko retourné mais li xew ba xew mooy gouvernement bi dañ waroon a am fulla am fayda man dama wax ne Macky Sall su fekkoon ne 2021 ba liy xewee dañoo demoon ba jusqu'au bout konoon lii jeex na. jusqu'au bout loo tuddee jusqu'au bout. jusqu'au bout muy dem identifier euh, kan moo ko def. parce que moom moo woote ne kaa leen ko def suñ ko waree jàpp ñu jàpp ko. suñ ko waree yóbbu tribunal ñu ñu tëj ko appel à la résistance la l' insu résistance la ko tuddee ñun insu lañ ko tuddee. moom nag moo ko tuddee résistance su ko neexee kan lay résister kaa ñu dem président fa mu fekk ñu génn ko fa. ñu xeex ak moom ne leen jëlal seen bakkan mais loolu ana réew ma soo waxoon Guinée gi jàpp nañ la bu yàgg doo faraan soo ko waxoon Mauritanie doo fanaan soo ko waxoon Mali doo fanaan waxatuma la nga wax ko ci réew arab yi muy muy muy Maroc wala Algérie wala wala fii daal gouvernement bi dafa war a gën a taxawaat parce que man du ma yore réew ñuy saaga gendarmerie di saaga euh, di saaga militaire yi alors di saaga euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, police yow nga ñu leen seetaan parce que sinon réew dootu am cest dire que personne li ko tubaab bi wax ne doit se soustraire à la légalité ni à la su fekkee ne Sonko def na loo xam ne du yoon dañ ko war a teg ñu xam ne def na lu yoon ñu jaarale ko yoon juge ko mais su fekkee ne dafa war a nekk moom mu nekk fële di di saaga léegi waxatuñ dara nag mu jël bëgg a retourner situation bi këpp ko ci ki nga xam ne alors moom mooy réew mi ba foo dégg ñu ne Sénégal euh, force de l'ordre yi ñoom ñoo doon rey nit ñi te fekk loolu du dëgg ma ne ma ne dara amu si. waaw mais mais ñi ñuy wax naan euh, nervi yi ñoom dañu ne nervi yi. dañ leen gis ci pegg force de défense et de sécurité yi. ma ne loolu yàgg nañu yàgg nañu yàgg nañu retourner situation moo tax dès le départ ma ne leen euh, ñi nga xam ne ñooy CAP mooy journaliste yi coordination des associations de presse. Mm-hmm. ma ne leen dañ waroon a génne lexique ñu wax kan mooy nervi est-ce que nga xam ne dafa nekk Médina am ñaari jabaram yor baayam yor yaayam ah di liggéey ca ca mairie ba ah mu gis ñuy taal mu ànd ak moroom ñu ñëw défendre mairie bi. ñu ñu rey ko ñu ne néer bi la ñu rey c'est ça qui n'est pas normal kenn ku dëkk Géejawaay wala ku dëkk euh, euh, caaro yi ah mu yore boutique am ñëw attaque boutique ba daal di tasaare jël ay jël ay téléphone am jël rajo yi fa doon jaay jël télévision yi ay mbokkam génn ñu ne ñu ne voilà ay nervi ñoom ñoo génn parce que ñoom dañoo bugg imposé yoon boo xam ne Sénégal yow su fekkee ne bandi yi ñoo ñëw dugg ci sa dugg ci dëkk bi alors di saccage di yàq àll yi di toj ay banque yow amoo kenn amul droit daal défendre leen ñaata banque la ñuy toj fi mu dool ni ñaata banque dama wax ñaata ñaata banque la ñuy toj Sénégal kenn xamul lu banque yi toll. mais mais euh, ñi wax nervi bi tey mais léegi ñi nga ne ay civil lañu ñu gis leen ci vidéo yi ñu yor ay armes nekk ci wetu. mais Sénégal ñoom ñoo am dafa am façon ñoo xam ne dañoo bokk ci police ak ñu bokk ci gendarmerie damay faral di nettali man bu may jàpp 93 bi ñuy génne Ablaye Wade manifestation ba ñu defoon man ay civil yooyu man ñoo ma jàpp ñu armé ñu nga jàppee Médina rue 1 ñoo xam ne katkaan lañu yore daal di ñëw may dox euh, fekk euh, ma ma jógee euh, bi ñu manifeste bi ñu commencé manifester rek ba manifestation bi tàng ma jógee fa di dem di dem ville ñu ngi ma carré foofu lañ ma jàppee donc ci rue 1 bi booru Sonatel bi ñooñu ay tur la yoroon après j'ai vu que c'était des de police donc loolu yàgg na ci police ñoo xam ne ils sont armés yoo xam ne yow da nga yaakaar ne da nga yaakaar ne da yi nga xam ne gis nañ leen yor arme ci wetu force de défense de sécurité yi si ñoom lañ bokk dañu civilu dama na si bokk mën nañu civilu parce que ñoom man jàpp ñu mel noonu jàpp nañ ma te arme la ñu yoroon man li may wax en 93 après bi ñu jàppee euh, le président la Wade mais c'est-à-dire que ñaawteef gi nga rëkk bi moom la nit ñi war a wax man journaliste yi relevé naa ci ñoom ñu ne am na juróom-ñaari cas de viol collectif ñoo xam ne dañ leen a sàkku dañ leen yekkataan ci biir manifestation yi loolu moo tax journaliste yi ñoom ñoom duñ ko wax lan moo tax ñoom Seydi Gassama xam loolu ak Alioune euh, ñu xam loolu ak Assane Dioma duñ ko wax am na benn cas boo xam ne man maa ko liir ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne bari ñi benn restaurant bu fa nekk fa la gaa yi dugg fekk fa juróomi nit dañ leen jàpp sëgal leen daal leen violé am na beneen cas boo xam ne euh, Liberté 6 la ou ou Sacré-Cœur ou Sacré-Cœur ñoom la. manifestant yi la non mën na nekk su leen infiltré. non ak même su leen infiltré soo defee manifestation yow garantiroo sécurité nit ñi ñu infiltré la yow la fii soo ñëwee bi ma lay wax nii mooy Sacré-Cœur ak Liberté 6 juróomi nit muy ñett ñoo xam ne ay ay ay congolaise lañu ak ñaari gabonaise dañu leen faa jàpp ci espèce marché xam bu ñu nekkoon. ah ñu jàpp leen ñu violé leen foofu ñëpp di ko gis digg bëccëg Ziguinchor am na benn jigéen boo xam ne yéen a ko bind yéen journaliste yi dañ koo jàpp ca université ba la jàppee jigéen bi ñu def ko viol collectif ñu tëdd ak moom demal ne loolu est-ce que yooyu xew yëpp ñaawteef yooyu nga xam ne dañoo ñoom dañoo bëgg a daganal alors euh, kii viol dañoo bëgg a daganal euh, euh, saay-saay jigéen ñi ma ne sàkku jigéen ñi yàkkataan jigéen ñi parce que gis nañu en ah, Sonko ma ne ñu jiiñ ko ko ñu toppeeku ko ñu bugg léegi ñu bugg ko daganal c'est que moo bugg a yàqu. loolu la journaliste yi war a wax. loolu mais monsieur le ministre li war a leeral mooy. sonk da ngeen fee toog ay at yu bëri. naan dafa violé dafa def menace de mort. waaye bi ñu ko àttee dañ ne ko defoo menace de mort violé woo. waaye tëdd nga ak moom dafa ne pervers tëdd bu bon la tëdd ak moom ba juge ne Euh, jël euh, vidéo yu bon yi nga xam ne moom lañ gis Sonko moo xale bi ñun ñu nekkee ko juge bi doon àtte juge bi juge bi doon àtte boppam moom moo ko wax jour àtte ba bi bi yàlla alaaj bi dafa déedéet alaaj déedéet non non non non alaaj tribunal ñëpp ko fekk ak dafa jël bu ko jox ko ko ñëw ne nañ ko nañ ko seetaan mu ne ko lii ak li ci nekk duma ko teg mukk fii duma ma ko fi teg parce que ñaaw ñaawteef la ba pare dafa bind est-ce que du manipulation yi déedéet dañoo bind ci document bi ñu bind bi nga xam ne jugement bi moo ki nekk dañ bind acte pervers ne gis nañ mu def acte ay ñaaw ñaawteef tëddee naag jigéen yi ay ay façon tëddee yu bon te Khady Sarr wax te te kii wax na ko fa kii nettali na ko fa lu mu tudd ah, kii Adji Sarr wax na ko fa ah jouru tabaski 11 heures mu jabaram ay doomam nit ñi julli ji mu bàyyi leen fa mu dem tuddi mu dem neexal njaay di bés di di di nab nabee xam nga loolu vraiment loolu vraiment dama ne ku def loolu te moom moom daa moom dafa waxoon ne li wax yëpp kenn mën nañ ko ñàkk bañ a gëm parce que daa ne moom demu fa ba awakaam bi kii maître jël alxuraan teg waat ne mosu faa dem euh, kii am bi euh, kii euh, ñaar liñ koy giiñ defu ko waxul loolu waaye dama xam nga yéen pourquoi yéen ngeen bëgg toujours ngeen di ko setal mettal moo taxaw setal déedéet waxul loolu de dafa ne demu fa boobaa du yiñ boo ca départ ba la ba ba ñu waxee ne Sonko dafa dem la jël alxuraanam teg ne wax na Sonko Sonko demu fa mu waat te moom rek ñett la am na keneen xam nga jomaan fay jomaay fay moom aussi jóg na wax ne demu fa ki yore communication bi tam jóg na wax ne demu fa donc donc loolu rek su fekkoon ne ci réew toit bi la nga wax wax boo xam ne dafa dëñ ñu seet ko xam ne du dëgg nga ne demoo fa fekk nga ne nga dem ko fa ensuite deuxièmement dafa doon wax ne moom ba mu ñëwee dafa ñëw ah euh, muuru yow ma ponkal mu toll mu toll ni moom ñëw muuru laxas boppam. loolu dana sol mbaxana. Euh, sol mbaxana alors jigéen nekk ci gannaawam man di raay gannaawam loolu loo loolu xel nangu ko loolu lu ci mënuy wuti. mais mais témoin mais ki témoin ci tribunal bi nee na Sonko dafa toog. waaw dama ne waxul waaye loolu nga dégg waaye am na ko wax ne Sonko ñeenti loxo ñeenti loxo ñoo ko jël di ko nab nabee foofu dañ lay nab nabee ba nga e, e, e, ba nga yegg ngaay xanaa loolu kay moo gën a bon loolu moo tax ñu gën ko tëj alors pour ah, yàq ndaw jigéen. dañ ne yàq na ndaw jeunesse yàq na ndaw euh, xaleel loolu moo tax ñuy tëj ko pour deux ans. d'accord c'est-à-dire li ñu ko war a wax mooy. Sonko su fekkoon ni demu fa woon bàyyi wutoon ay jabaram bàyyi wutoon waa këram bàyyi garde corps bàyyi chauffeur am bàyyi ñëpp xaaju guddi muy heure boo xam ne kenn waru fa dem guddi muy dañ nekk couvre-feu mu dem foofu kon man dara ko fekk. c'est ça donc Sénégal tey suñu amee ñuy rey ñu am ay fanweeri ñoo xam ne dee nañ dans cette affaire là mu am yàqu-yàqu yoo xam ne yàq nañ ko fi moom moom moo ko jiiñ état bi waaye ñun état ak nit ñi Sénégal yi nga xam ne yàlla rek moo tax ñu wax Sonko lañ ko jiiñ parce que Sonko moom moo woote Sonko moo ne kaay leen moo dugg ci oto génnee Ziguinchor ne kaay leen dem kaay leen dem na leen jaral seen bakkan kaay leen dem ñu xeexi kaay leen dem ñu reyante et puis mu ne président tey danaa ko rey wala mu rey ma mais nga jógee dëkk ak dëkk kii yore armée yore police yore gendarmerie yore yëpp nga taxaw ci digg bi ni ngi jëla seen nga ne président ba tey dinaa ko rey wala ñu rey la loolu réew bu mu ko waxee woon du ko fekkee. d'accord réew bu ko waxee woon man du fanaan biti. d'accord sànq danañ ñëwaat ci euh, CPI mais bala ñu ñëwaat ci CPI Juan Branco mii nga wax sànq ne dañ ko tuumaloon mbirum viol foofu ca ca France est-ce que yoon mujj ko setal. non dañ jàpp ne comme comme Sonko rek laal na mos na. loolu ko setal déedéet. dañu solal ne c'est-à-dire xale ba dafa nangu xam nga viol xam nga Sonko su fekkoon ne dès le départ daa waxoon ne man kat ñam naa léegi mais parce que xale bi moo nangu wax la contre wax. mais li nga wax nii est-ce que du kàddu yu diis. non diisul dëgg la li ñu wax a garaaw su fekkoon ne dafa waxoon ne ñam naa rek ñu xam ne loolu am na ah kon su ko defee dañuy xool parce que kaddu lay doon contre kàddu ndax xale bi daan. ñam na mu ne ñamut man ñamuma mu ne ko ñam nga mu ne ñamuma su ko defee su su la amee dañ naan bénéfice du doute loolu la ci loolu la ci Juan Branco génnee loolu la ci génnee mais xam nga kii moom dafa moom du man mais mais Juan euh, saisir bi mu saisir euh, CPI est-ce que euh, yëngulul république bi ndax gis nañ tey ministre des forces armées wax na ci ci conférence de presse ministre des affaires étrangères maître Aïssata Tall Sall Euh, wax na ci est-ce que le fait que ñoom ñu wax si est-ce que joxuñu gëdd saisir bi am. ci non war nañ war nañ cee wax Abdoulaye dañoo wax ne. nit su ñëwee tuumaal la da ngaa war a teggi tuuma comme waxal ne loo xam du dëgg dañu war a teggi teggi tuuma. Euh, man foo jàpp ne fa lay mujj. fenn du ki zéro lay mujj du mënta mujj fenn moom parce que ñoom waruñu mënuñu amuñu amuñu amuñu amuñu maxaama pour yëngal CPI parce que CPI lu garaaw a garaaw cest ay génocide ay nit ñu reyante cest à ay crimes contre l'humanité cest à ay crimes de guerre loolu amul Sénégal c'est-à-dire que moom Juan Branco day politique extrémiste la ba ba pare activiste la c'est-à-dire yëngal yëngal yëngal pour nit ñi dégg lii moo xew Sénégal mais xam ne man du mujj fenn mu du mujj fenn. d'accord mais yëngal bi da comme ni nga dee waa réew yi kenn ku nekk nga ciy wax. ñuy Sénégal tey Sénégal bëccëg loolu rek mais amul fenn fu man a mujj. waaw mais euh, événement yi fi amoon. waaw euh, gis nañ ne deux deux mille mille vingt 2021 bi ba léegi enquête bi ñu doon wax. gisuñu fenn foo xam ne fa la mujj bii amaatee 2023 bi état bi nee na danañu def enquête mais est-ce que jàpp nga ne enquête bi euh, dina leeral exactement ñi faat lan moo leen faat. ma ne ñi faatu moom li leer ba leer mooy li leen njëkk a faat mooy Sonko moo appale kaay leen xeex na leen jëral seen bakkan kaay leen ngeen dem moo wax wax ja nga xam ne moo indi affaire bi loolu moom c'est la première règle léegi nag individuellement fanweer yi dee kii naka la dee këlee naka la dee loolu la enquête bi moom di génne waaye lan kan moo leen jox ordre na leen dem leen loolu moom leer na Sonko la mais nan la ñu de qu'est-ce qui paaka moo ko rey est-ce que fetel moo ko rey est-ce que euh, moo ko rey est-ce que benn rebelle wala est-ce que benn nit bu nekkoon ci biir manifestation moo ko rey loolu la enquête bi mën a wone ah ak lakk nañu Auchan yi kan moo ne nañ lakk Auchan kan moo waxoon ne intérêt français yi nañ leen dem ñu lakk ko kan moo wax ci réseaux sociaux yi nañ leen dem ñu lakki station d'essence yi. kan moo wax loolu. waa waa waa Pastef yi ñoom ñoo ko doon wax mi ngi ci mi ngi loolu mi ngi ci mi ci mi ngi réseau yëpp. Mhm. loolu loolu mi ngi réseau yëpp. réseau yëpp soo demee da nga gis. ñoo xam ne dañ doon woote. ñu ne kaa leen ñu dem lakk station temps day gis bu njëkk sax rajo yi man xam nga wala wala fajiri bi tëj nañ ko man ci depuis deux mille vingt et un man laa njëkkoon wax ne suñ bàyyee nii rajo télévision yu mag yi ñuy wax kenn ku nekk. kenn ku nekk kenn ku nekk di reporter kenn ku nekk di reporter di wax naan ñu ngi taal fii ñu ngi lakk fële réew mi dina tàkk man boobu laa waxoon nañ ko arrêté. moi j'étais dès le départ laa noonu nañ arrêté lii. Mhm. ñu affaire yi. Mhm. Ah di ko bàyyi muy dem ren sax tane na parce que bii passé moom. Mhm. Euh, rajo yu bëri. Mhm. waxatuñu wax reporter duñu woon. Mhm. Euh, kii rek Walfadjri rek moo desoon ki reportage yi donc vraiment. mais est-ce que Walfadjri defuñu woon seen liggéey. non defuñu seen liggéey non non non man defuñu seen liggéey man maa gën a bëgg Walfadjri Walfadjri ci ñi leen jàppale man ci laa bokk mais man seetaan naa reportage yoo xam ne man dama doon mer sax parce que yoo xam ne nga ma eh euh, ñu ngi fii nu mu tudd ki hmm, fa fële booru Rufisque yooyu ah kaay leen Auchan baa ngi nii lii de gaa yaa ngi waaj a génn benn jigéen léegi ñu génn ah léegi gaa yi ñëw di ko wax ba nit ñi ñëw mais quand loolu télévision bu responsable waru ko def journaliste bu responsable waru ko def c'est-à-dire que loolu mooy dëgg bi dañu war a xam ne nation bi ku soo nekkee Walfadjri rek nga nekk TFM ak euh, yow nga nekk ci réew mi nga nekk ci paysan ba nekk ci àll ba ñëpp ci yem. waaw ku nekk nag mën nga def sa liggéey. Mm-hmm. Euh, am looy wax mais gis kër yi. kër yi. toujours am lu ciy xew loo xam ne kenn du ko nettali. am lu ñuy nettali mais même soo donc soo responsabilité boobu ñuy am ci biir kër yi ak ak ci bureau yi moom la moom la journaliste bi moom la war fa yi war a am. am foo xam ne su demee kat ba xam ne li mën naa yàqal réew mi moom mu arrêté ni lii du ma ko wax daal di fay télévision waaw mais lii ngi def nii euh, li li liñ ci góobee moom. mais liñ ci gar moom ñoo ngi ci góobee mais xam nga tamit yéen yéen mouvance présidentielle 2021 da ngeen doon wax. Euh, li fi amoon dootu fi amati di def ay menaces mais gis nañ li fi am mën nañoo wax sax ni presque dafa raw euh, li fi xewoon 2021. li nga wax dëgg la parce que président bi dafa war dem jusqu'au bout c'est-à-dire que Abdoulaye Wade dafa waxoon ne dañ war a am despot despote koo xam ne su ñëwee day dóor su waree dóor su su waree taxaw mu taxaw loolu moo war a yore réew mi mais réew mi raayal mënu ko yore fi loolu réew mi egg na foo xam ne il faut que ñu jubbanti ñi nga xam ne doxuñu il faut que. Euh, képp koo xam ne def nga loo war def il faut que ñu jaaral jaarale ci yoon mais suñ ko bëggee bàyyi nii mais c'est pas parce que réewane gu mat sëkk moo nekk ci biir réew mi xam nga suñu ba Touba ñuy ñëw di manifester biir Touba di lakk biir euh, ay ay kër biir Touba mais loolu teggi war ma la teggi war ma sëriñ bi la loolu kenn waru koo def yow yaa yow muy taalibe yaa war a xam ne yow taalibe nga yaa war a xam ne nga war ma euh, sa confrérie yi da nga ko war a garder eh, parce que euh, li nga xam ne Ah, moom la ñu àdduna bi yëpp jàppee mouridisme mooy liggéey mooy mooy ñàkk jariñu mooy dégg ndigal mooy topp waxi sëriñ bi donc loolu ku ko loolu ñoom ñoom soo ko ñoo ko ñoo ko xotti ñoo ko xotti biir Touba parce que ñoo fa ñëw dugg biir Touba ak seen ay seen oto yi daal di marché ah nit ñi génn topp leen mais loolu c'est affront la c'est une attaque. Sonko jumaa ja la génn jumaa ja la génnoon dem ni ñu topp ko. ma ne foo xam ne soo fa demee am na loo xam ne da nga ko yàqal sëriñ bi parce que meru sëriñ bi xëyul si ñoom sëriñ bi dafa nekk mukk di la wax naan lu tax def lu tax ngeen def lële mais xam naa ne sëriñ moom sell na sell goo xam ne meram xëyul ci kenn te ku ko def da nga ko gis. donc lii di xew nii yëpp gis nga lii di xew nii yëpp ngeen yaakaar ne ay caaxaan lañ mais wàll yu moom ku ko meral ku ko meral. mën naa waat ne da ko gis. mais sànq yaa ngi wax euh, réew mi euh, boo waree dóor dóor boo waree taxaw taxaw dem bu est-ce que bëggoo xelal njiitu réew mi pour mu yor réew mi ci wàllum dictature. man la déedéet. na ko na def comme na def despote éclairé. mais sori wute dictature. de non moitié bi la moitié bi la moitié bi la moitié bi la despote éclairé comme ni ko Abdoulaye Wade waxee. c'est-à-dire que il faut que soo waree maslaa bi baax na mais dafa am fu war a yem c'est-à-dire que président mën na maslaa laa biir na trop. mais dafa am fu mu war a yem c'est-à-dire heure boo xamee ne da war a décider. bul xaar bul xaar ñaari fan ñetti fan nga décider. heure boo xamee da nga war a jaarale nit ci yoon bul xaar ñaari fan nga jaarale ci yoon soo gisee ay Maroc ñu développé soo demee Maroc tey sa xol day sedd. c'est-à-dire amoon na jamono boo xam ne. kenn fay takk euh, ceinture. mooy le roi du Maroc. soo demee Algérie soo gisee ni ko liggéeyee nga dem nga dem ci dëkku Xadafi Xadafi ni mu liggéeyee woon dëkkam bi ah loolu parce benn ceinture bi nit a koy takk soo demee Égypte. ak farawon yi la ñuy liggéey ak Afrique du Sud c'est-à-dire réew moo fi jàpp rek mu mu mu avancé rek. dafa am baat. dafa am kilifa. nit ñi dañuy dafa am ku ñuy ragal. mais kër gi su fekkee ne waa kër gi ragaluñu kenn dañuy dem ba lu leen neex la ñuy def. mais li ngay wax nii bu ko Ablaye Wade defoon est-ce que dina falu. non loolu soo faloogul kay doo def loolu mais soo faloo da nga war a wane sa bopp. mais taxawaay bii ngay wax. man yàgg naa wax ci Ablaye Wade man maa doon jóg taxaw man Ablaye Wade da jóg. nga defante ko ak gars yi soo waree defante yow laabir nga trop nango mën nga maye alal mën nga maye xaalis da nga joxe teraanga waaye yow li nga xam ne yow yaa ko moom muy l'autorité bul ko séddoo kenn autorité kenn du ko séddoo saa li nga xam ne yaa moom da nga war a yor réew mi d'une main forte waroo ko séddoo kum neex nag nga généreux may ko sa alal nga may ko sa xaalis nga rey nit ñi nga foog nit ñi mais li nguur autorité moo koy yore c'est-à-dire sa kilifteef sa taxawaay ba nga xam ne ku la song soo ko soo ko soo ko dóoree benn soo liggéey dootu xalaat ñëwaat. mais yow ngay def loolu la neex soo liggéey nga dellu nga dellu ñëwaat loolu moo yoon. waaw mais sànq euh, Ousmane Sonko àtte nañ ko ba pare ma ngi këram euh, ñoom ñu tuddee ko séquestration amul benn kayit buy firndeel ne war nañu na ko bul génn wala bul dem fenn loolu ñoom ñu jàppee ko euh, séquestration est-ce que tamit du ak jaay doole. <laughs> Sonko moo njëkk jaay doole kaay leen dem. ay kaay leen génne ay kaay leen génne président ñoo leen dem xeexi te yow ngay benn nit yaay jaay doole c'est-à-dire loolu yàlla da koy won ne ko gis nga doole yàlla moom moo ko yore te ku mu jox doole da nga am doole. donc benn nit di jóg di xaabar xaabar yi na maay maa man lii maay def lii gars yi dañ nañ ko fa par la force mu toog fa. ci jaay doole déedéet doole bi bi bi nga xam ne yoon moo ko may yoon moo ne en situation de trouble mën nga jël toute mesure. alors préventive boo xam ne alors léegi euh, trouble yi du am. mais da nga koy notifié xam nga. mën nga ko bañ a euh, yow léegi euh, kii bi par exemple yow su fekkee da nga doon dem Touba ñu dem ba ci yoon ñu gisee yoon bi dagg na ci autoroute bi nga ñëw ba Bambey ñu dévier la ku la koy notifié kenn du la ko notifié dañ lay dévier Bambey ne jaaral fii. suñ demoon tam ba yoon bi circulation bi ñu dem ba nga xam ne dafa am fu mu am encombrement ci diggante yoonu Touba wi ñu ne la jàddal da ngay jàdd donc loolu. loo loolu loolu ça de soi loolu amul notification c'est-à-dire que li ma def nii dem nañ ba xam ne fi mu toll nii alors réew mi suñ ko bàyyee muy dem ak ñëw su génnee woo nit ñi topp ko réew mi day am trouble nga ne ko toogal fii <laughs> mu toog fa. mais mais est-ce que jàpp sonk dugal ci kaso bi mënut a indi ay jafe-jafe ci réew mi. waaw waaw mais am na loo xam ne mënut a ñàkk am na loo xam ne mënut a ñàkk parce que lu mu indi indi indi indi jafe de réew si l'État bees les bras euh, état bi euh, réew mi xam ne ragal na Sonko. réew moo xam ne ñemewul a jël sonk mesure yi koodu Sonko soo léegi dafay am keneen kuy jóg ne man damay def comme ni moom da ngay gis ñu jóg di ko def dégg nga parce que loolu moo tax euh, jàpp Sonko su ko yoon jàppee su ñu waree tëj ñu tëj ko dafa nekk loo xam ne loolu mooy lu normal mais li normalul mooy benn nit jàppante ak benn nit ah yàkkataan la ou pas mu dem ñooy tëj nañ ko ñaari at alors kenn du ko tëj ñu bàyyi ko muy wëndeelu dem yoonam loolu mooy exception bu doon yowoon nooy def bi ñu ko tëjee deux ans kan su doon man ah. damay xool lan la yoon lan la yoon wax xam nga fi mu toll nii affaire contumace yi moo compliqué mbir mi parce que suñu la defee contumace mooy yow da ngaa bañ a dem su fekkee ne yow da ngaa bañ a dem yow dañ laa war a juger te doo ko fekkee yow nag juge boobu bu fekkee ne gisuñu la jugement bi day valable mais suñ leen jëlee indi la dañ laa war a jàppaat ñu jugé waat la léegi nag xam naa ne am am amoon na délai boo xam ne mooy délai bi nga war a def recours su su ba jeexee yow doo ma def opposition moom opposition moom la mën a def donc xam naa ne xam nga comme euh, droit dafa sew te léegi loo def rek sur le plan international gars yi dañ lay topp di la seet xam naa loolu moom moo tax gars yi bëgguñ ko jàpp euh, non ñu ngi wut yoon boo xam ne suñ ko jàppee kenn du leen mën a teg dara. ah kenn du leen mën a teg tuuma. déedéet pertuma c'est-à-dire que kenn du man moom du am possibilité pour génnaat ci parce que jàpp ko jàpp boo xam ne day am possibilité pour génn ci loolu la yoon da koy may mu génn loolu moo tax gars yi jàppuñu ko de question ragal songo songo kenn ragalu ko. waaw mais yow xam nga ne booy boo ko jàppee dugal ci kaso bi jafe-jafe mën naa. ah jafe-jafe moom dina am moom. parce que xam naa ne jafe-jafe moom. moom moom kon dina am su dee loolu jafe dana am parce que état bi moom su ko bàyyee mu dem mu jul fenn gars yi dañuy génn ci état bi. li leer ba leer mooy. Mhm. Macky Sall su fekkee ne bàyyi na Sonko mu génne ki nii dara fekk ko ci réew mi ëllëg su amaatee beneen troisième tour réew mi affaire dina ñaaw ci réew mi trop man loolu man maa la ko xam mhm. li amoon deux mille vingt et un ñu naan du amaat. mu am tey deux mille vingt trois su ci Sonko génnee nii moom dong te dara fekk ko ci. lii amati ëllëg mooy gën a ñaaw lii. d'accord waaw mais ñoom euh, ñoom Pastef sax def nañ euh, lancé nañ benn pétition. pour yéen pour ñu daal di tas parti bi nga xam ne mooy euh, APR ndax ñoom dañoo gis ne APR mooy recruter li nga xam ne tey euh, mooy ay nervi dañuy tàkkandeku ñoom lañu war a tas ñoom dañ ñoom da gis nga France am na fa euh, benn parti boo xam ne ñu ngi ko tuddee les soulevement soulevement xaw ma de la nature soulèvement mooy parti écologiste bu bees bi. Mm-hmm. àllarba ji le ministre bi déclaré woon ne démb démb lañ leen tas normalement. démb xam lu ñu def loolal tas bi. xam nga waral tas bi benn benn dañuy def appel dañuy def ay appel à su mhm. ñuy manifester dañuy taal ay boutiques dañuy taal ay magasins dégg nga. Mhm. dañuy manifester sans autorisation ñett yooyu moo tax euh, parti écologiste boobu nekk France ministère de l'intérieur conseil de ministres moo ko tas de demul tribunal demul fenn conseil des ministre parce que dégg naa keroog euh, man maa déglu ministre de l'intérieur mu ne mercredi prochain en conseil des ministres. ci la ñuy tas parti bi parce que amuñu droit lekk ci réew ngay manifester sans autorisation sooy manifester nga def des manifestations violentes ngay lakk ay biens de jàmbur bien public ak bien privé comme France nag ñoo mën a tas parti écologiste kon Sénégal tam war nañu mën a tas euh, Pastef su fekkee ne lii nga xam ne ñoom ñoo ko def parce que gis nañ ñoo xam ne ay cocktail molotov moom laa ay militants mi yore ñu sànni ko gis nañ ni ñu lakkee université ba ñuy lakk université bi gis nañu ñoo xam ne. est-ce que ñooñu waa Pastef waaw gis nañ ñoo xam ne dañ doon wëy wëyu Sonko c'est enregistré loolu kay am nañ ko ah ñu ñoo xam ne ñoom ñoo lakk les archives de l'université li gën ñaaw yow ngay wut réew nga fekk le le creuset du savoir fa ñuy jàngalee njàngale mu ngi mi nga yóbbu fa ay ay bandi ñu fanaan ak étudiants yi ànd ak yow say militants yi la lendemain ñu xëy. ñu lakk yëpp mais li ngay wax lan moo koy firndeel li mais lan moo koy firndeel yéen seen télé seen kii seen kii moo ko firndeel. seen euh, seen vidéo yi y a des milliers de vidéos. mais lan mooy firndeel ne Ousmane Sonko moo fi yebal ay. Ah, mais xam nga Ousmane Sonko moo ne d'abord na ngeen dem Dakar yéen fekk leen ma Dakar ñu xeex. ñu résister dara xewatul. waaw moom moo wax résister man dama ne moo ne fekk nañu Dakar ñu xeex fekk nañu Dakar ñu génn président comme moo ko wax gars yi fekk si ko Dakar am ñoo xam ne ñu jàpp ne joge jógee nañ dëkkam ñëw am ñoo xam ne ñu jàpp ne dañoo jógee Guinée Bissau ñëw am ñoo xam ne koo xam ne dañ koo jàpp si frontière u bi muy dugg biir Bakel te dañ koo tëjoon Nigéria muy jihadiste. ñu tëj ko Nigéria génne ko mu ñëw jàpp ko fii mais ku def kay kaay leen ñu dem ñu dem xeexi loolu am ñu gis ñoo xam ne dañuy wëy wëyu Sonko bi sonk boobu euh, bi ñuy lakk université bi mais kon moom la ñu lakk CESTI nga xam ne fa ñuy jàngale njàngalekat yi xam ne li ma nag les grands journalistes yi nga xam ne ñoo génnee CESTI ak ñu nekk biir CESTI au lieu ñu jóg ñu ñaawlu ko wax ne lii waru fi am plus jamais ñuy dem di génne ay ay monstre ak yooyu mais loolu lañu war a bàyyi cest à ñoom dañu war a xam ne ci réew mi lañu bokk cest à dañoo war a bokk ci Sénégal ki marche waa CESTI journaliste ñu waroo a kii la Sénégal bi dox dégg naa directeur mu ne woy man de ah ñaari weer ci gannaaw waxoon naa damay woo waa ñi fi nekkoon gëstu bi ñoo ngi defaraat ko wax jooju soo ko déggee day mel ni ñoom bëggoon na ar bi lakk pour ñu defaraat ko non c'est lii ñii yàq nañ ko waruñu ko woon a yàq. nañu mobiliser ñi nga xam ne ñoo fi jaar jaar si yëpp ñoo ñu defaraat ko loolu moom mooy yoon cest à Sénégal mhm. dañ war a am langage de vérité waruñu waruñu naxante nga nekk journaliste loo bañ bañ président Macky Sall waroo bañ réew mi waroo bàyyi ñuy lakk terre bi waroo bàyyi gars yi di lakk euh, BRT nga xam ne ëllëg ñi ñii ko lakk nii mooy doomu baadoole yi nga xam ne ñoo dëkk dans la dans la banlieue soo liggéey ñoom moo nekkoon seen ndam ñu ñëw en dix minutes ñëw biir Ndakaaru donc ñoom seen àll lañ lakk xoolee la gare de Rufisque ak milliards yi ci def ak ak ak rafetaay bi ak jekkaay bi mooy gaaru teer bi ay xale yu góor a ñëw lakk ko te te nit ñi ko lakk te naroon nañ lakk sax yow teer bi lakk toutes les gares loo xam ne alalu alalu réew mi la ñaata at lañ koy fay ak Sénégal ban ñàkk la def jëlee ay ak ak Sénégal yi ñoo ciy liggéey. ngeen ñëw ngeen lakk ko waa Sonko ñëw nekkaa leen dem ñu lakk ko affaire Sonko affaire góor ak jigéen loo xam ne on aurait pu le régler wala biir suite beauté ñu régler ko entre ñoom mais politique bi Sonko moo ko politisé Sonko moo ne kaay leen ñu politiser ko d'ailleurs gis nga sax Assane Diop bi nga xam ne moo nekk TV5 am na ca jamono yële wax ko mu ne mu ne du yoon sénégal yi bëgg a bu bu dëgg bëgg ko nëbb parce que yi nga xam ne laa woo ne la kaay ñu àtte la yow mu wóor na la liñ la def yow mu wóor la na yow li nga def yaag jigéen la soo ñëwee mu wax nga wax xale bu ndaw la mën nga caa génn nga ne sénégalais kaay leen ñu ànd ñu xeex kaay dem ñu dem ñu reyante kaay leen mu leen seen bakkan c'est ça qui n'est gis nga Sénégal lu ñu lu fi nit wax lu fu niir wax te waxoo ne Sonko moo tax Sonko moo woote. da ngaa wax loo xam ne da wax lu la neex rek mais mais Sénégal ñoru la. d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre Farba Senghor mbokk yi moom la ñu invité ci tey ci rajo Rewmi FM mooy euh, président du mouvement mbooloo askan wi les euh, les libéraux républicains léegi waa yeeyu askan wi ñoom dimanche. dañoo bëgg a dem libéré ji Ousmane Sonko cité kër góor gi. d'abord loolu caaxaan la est-ce que bàyyi wuñ ko sax loolu moom caaxaan la moom mënuñu ko libéré. lu tax benn benn et kooku c'est un boo xam ne moom dañ ko lancé ay gendarme ay les forces de l'ordre te loolu le monde entier xam nañ ne amul fenn foo xam ne da nga bëgg a def marche pacifique nga ne da ngay dem fekk foo xam ne police ak gendarme dañoo koy garder nga ne da ngay da dem ñaay ko nga génne loolu. et puis dafa rafetul ci Sénégal Sénégal les fêtes religieuses fêtes yi gën a màgg ma ne ki la tabaski bokk ñu jot tabaski gars yi dem di liggéey ñii nga nekk Sandaga. ñii nga jóge di jaay seen ay xar yi soo demee gis nga fii euh, yoof euh, ma ne ngor euh, yëmbal Parcelles Assainies mbaaw fii ba fii ba Kër Massar xale yu góor yi ata ngi nii ak maire yi di yar ci seen jur gi ci seen biir kër yi ba Thiès pour mu war a nekk seen traite ñu jaay ko ñu ñëw ne leen yéen kat fi mu toll dañuy dem libéré ci Sonko xeex bi ñoo ñu yàqule tailleur yi nga xam ne lii moom mooy seen année bi tailleur yi li ñu am mooy fin d'année la ñu am ak korité ak tabaski mu mu ngi nii ñun ñu nar a ko yàqal yàq seen liggéey ensuite jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey jaay ci marché yi ñu nekk marché Sandaga ñu nekk marché HLM yi waa Touba soo demee jigéen ñi gu ñi gu góor ñi ñëpp ngi kër kër yi ah ñoom ñu ñëw ne yéen daal kaay la xeex indi xeex ki dëkk bi ba nga xam ne kenn du kenn tal dara ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm tabaski naroon a julli ji ah xale yu ndaw yi naroon a eh, ñaan ndéwénal nga ne fi histoire boo xam ne kenn du ñemee génn mais àq la boo xam ne ak ku am xel dëkk Sénégal xaw ma force 24 lañu xaw ma force lan lañu mais waroon nañ xam ne waruñu ko woon a xalaat que loolu baaxul ci réew mi lu ñaaw ci réew mi la te koy wut réew waroo jël réew mi du ko dugal ci fitna. d'accord waaw léegi euh, ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, dialogue national bi ñu ñëw nag directement si dialogue politique bi dialogue bi gis nañ si daal ak déggoo am na ci ay ponk yu bëree bëri ci parrainage bi euh, ak caution beeg yooyu déggoo tamit am na ci xalifa Sall ak Karim Wade modification article L28 L29 ak. L28 ba nga xam ne daal maanaam ci tënk Karim Wade Khalifa Sall dinañ mën a bokk ci élection présidentielle 2024 euh, yow ban gis-gis nga ci am. bon gis-gis moo ci am mooy d'abord mm, président Macky Sall ku yàgg a bëgg waxtaan la donc moom euh, liñ koy waxee ci Afrique régime yi nga xam ne waxtaan moom la ñu xëyee ba ñu juddoo ba léegi moom ci la bokk donc moom ci côté boobu moom gàcce ngaalaam waxtaan ak ñaari nit ñoo ko yore ñi nga xam ne ñoom dañoo am ay problème jubóowuñu juboowul ñoom lañ ne kaay leen ngeen toog su ngeen ñëwee su ngeen ñëwee ngeen toog alors ñu toog ñu waxtaan koo xam ne am nga ci am nga ci intérêt su boobaa yow yow da war a ñëw nga toog waxtaan xalifa am na ci intérêt xalifa Sall ñëw na parce que xam na ne guta gi mu dugg nii lu ko ci génne lu ko ciy génne moo gën lu ko ci bàyyi man doon naa ko wax moo Karim Wade ma ne leen yow danaa wax naa sax dañuy def erreur de jeunesse daf naa mos naa ko wax nga dégg ko ah. dañuy def parce que ku nekk ci biir pax mi waroo di sànnante ak ku nekk ci biti kon ñoom dañoo war a fexe ba génn ci guta gi donc ñoo opportunité bii ak lu leen ñoom sonk yi mën a wax ak lu leen waa passé yi mën a wax ñoom dañuy war a fexe rek ñoom ba ñu génn ci parce que soo nekkee ci àll bi ah nga nekk ci lëndëm nga dem ba gis euh, luy leer di xor-xori da ngay wuti loolu donc man loolu c'est humain daal loolu sur même sur le politique que ñoom ñu wax ba génn ci que ñoom ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw waxtaan parce que buntu bu leen yàlla ubbil la. yàlla mais dil bi ñoom Sonko ñoom Bougane nee nañ dil la. waaw xam nga Sonko. nee nañ dil la boo xam ne dil la boo xam ne pour président mag Sall euh, légitimité troisième candidature am moo tax mu wootee dialogue bi. xam nga li ñu opportunité. opportunité mooy nga gis bunt boo xam ne yow bunt ba mën nga fa jaar nga dem jaar fa donc ñële deuxièmement dil mooy accord ay ay waxtaan. donc luy mën a génnee ci biir dialogue ba accord lay doon waxtaan wax waxtaan lay doon léegi président Macky Sall nañ si nañ xool situation bi Karim dafa def de tout dafa def euh, enrichissement illicite alal boo xam ne waru ko woon a am tribunal jugé ko tëj ko ay kaso euh, amande ko xam nga def. Mhm. Khalifa Sall dañ la détourné xaalis boo xam ne euh, dañuy public état moo ko moom ñu tëj ko. doo xam ñooñu ñëpp dañu def dañu def ay ay ay ay ay infraction def mm-hmm. Macky Sall deful infraction Macky deful dara Macky Sall mi ngi ci ñaari mandat dégg nga mm-hmm. benn mandat de sept ans ak benn mandat de cinq ans mu jeexal dafa ndànk rek en 2012 Ablaye Wade nekkoon ci même situation Sénégal yi yëpp ne ko doo ko fi defee mu dem conseil constitutionnel mu conseil bi ne ko demal moom bi ñu koy gañe dafa dem ñu gañe ko donc loolu ñaari jàngat moo ci war am réew élection conseil constitutionnel moo ko yore deuxièmement fal nit ñi ñooy fal même soo forcé nga ne da dem te nit ñi bëgguñu la duñ la fal loolu de waroon naa tax Macky Macky war a dem beneen bi tam ñu ñu ñu seetaan ko beneen bi tam président Macky Sall si boppam alors euh, affaire bii ñoom ñaar ay infraction moo deful moom nitam yi su leen neexee ñu ne ko conseil constitutionnel mooy fal mooy folli bàyyi leen ma dem conseil su conseil constitutionnel ne man duma dem su boobaa ma toog mais ñoom ñu bëgg Macky Sall ci dooleem mu am yërmandeem baal leen lu ñu war a def yépp ñoom ñoo bokk. ñoom ñu am soxor ne ko yow dañ lay soxore yow doo bokk yow demal nga toog loolu sax xel da ko nanguwul. est-ce bu ne damay bokk mënut di jafe-jafe ci dëkk bi. gis nga dëkk moom ku nekk ci président de la république Sénégal di liggéey. gars yi xam ne yaa ngi liggéey comme ni fa Abdoulaye nekkoon ñu xam ne yow soo demee élection da ngay gañe gars yi gars yi dañ lay jéem a yàqal fexe ba nit ñi du duñ ñemee wate ay ñuy lakk dëkk bi di ko taal comme defoon Abdoulaye wala ñu fexe yow ba nga ragal doo dem doo dem élection loolu la mais jafe-jafe moom moom moom du fi ñàkk. parce que jikko ñoo changé. Karim xam xam nga ko bu baax a baax Karim tey bu ñëwoon bokk ci 2024 élection yi est-ce que jàpp nga ne am na ay chance. man Karim gisaguma sax ba léegi gisaguma mu bokk xaw ma daal mais. Euh, sama gis-gis amaguma ci ndigal waaye damaa waxoon Karim du ñëw du bokk xam nga ma boo koy wax Sénégal gi yëpp ah, ah, saaga nañ ma ci wax nañ ma ci lu ñaaw même président bi ba ma ko waxee sax xam naa ne man gëwuma woon bu ma ne du ñëw du bokk waaye ba léegi gisaguma ci gisaguma ci lu leer te soo seetloo. ci kala analyse politique. man képp laay gisee ci biir ak ci ci ci ak ci baatin. Mhm. gisaguma lu leer ci mbirum Karim xaw ma nag nu muy demee ëllëg waaye Karim soo ko seetloo. mu ne moom bëggul li ñu koy defal nii léegi dafa bëgg dem. révision révision yow est-ce que sa xel may la la ne mën nañ ko réviser fii ak ak ak février xam nga loolu mënut a nekk. Mhm. ah mhm. kon daa mel ni ku xaw a ku yàlla xaw a teg nattu. mais non non mais ñoom nee nañ. Hmm. ñoom nee nañ dialogue bi ko ak li ñu si modifié concerné wu leen ndax le 21 juin 2020 euh, la Karim euh, nekkoon électeur. xam nga loolu seen wax la waaye lan moo taxoon bokkuñu 2019 c'est ça le problème. kenn mosu leen wax ne leen yéen su euh, su suñ eggee deux mille vingt et un ngeen mën a bokk loolu ñoom ñoo ko wax seen waxu bopp la rek loolu moom seen waxu bopp la waaye du constitution bi parce que la leen tere élection moom ku ñu tere élection ne doo dem élection ah nga bëgg a bokkaat il faut këyit mooy tax ne la nga bokkaat te këyit googu mooy autorisé nga ñu inscrire la. lu tax nga ne jàppoo ne Karim dina dem. gisuma ko pour le moment. parce que amatul ay ambition wala. non xelam dafa nëx. c'est-à-dire Karim su amoon fayda am fulla nga waroon a amee mbir yi changé na bu yàgg mais Karim xel bi moo nax. amul fulla amul fayda. Euh, su amoon fulla am fayda gi war ci moom tey romboon na fii trop waaye euh, xel mi moo nax. man gisuma mu jàll daal gisuma ko. mais Karim euh, amul benn deal wala benn waxtaan boo jàpp ne seq na ko ak Macky Sall. Ah, xaw ma man daal man mënuma gis loolu loolu baatin la loolu ci li ci biir la bokk loolu man gisuma ko mais Karim daal su fekkee ne bëgg naa bokk. deux mille vingt quatre dana soppi doxin. waaw mais mais mais tey euh, Ousmane Sonko mi tey wax ji wax ji du est-ce que Macky Sall ñi mu àndal dañ koo ragal pour dem ak moom ci élection présidentielle. non Ousmane Sonko war dem élection parce que benn ñaawteew bi soo ko defee suñu la tëjee waroo dem dafa am problème privé problème mu jigéen ak jigéen ah, moom ak jigéen loolu kenn war a koo yóbbu sax ci pencum pencum waxtaanu kaay ba waxtaanu kaay ba kenn ñëw faa dem nga woo Sénégal yi ñëw taxaw. nga ne man kii dañ ko jiñ yàkk daan moom laa bëgg mu bokk élection non loolu loolu loolu du affaire réew. waa mais ñoom nee nañ même ñoom euh, Toussaint Manga ñoom waa Pastef wax nañ ko nee nañu élection am ci Sénégal sans Sonko. loolu bu ko kenn xalaat. waaye man waxoon euh, Toussaint moomu moo loolu jiite les jeunes UJTL ci Ablaye Wade daa waxoon ne Karim kenn du ko jàpp ñu jàpp Karim. mu ne Karim di dugg kaso Karim dugg kaso Karim kenn du ko tëj ñu tëj Karim donc waxi Toussaint Manga ba mu ngelaw la euh, wékkul fenn c'est-à-dire na wax rek mhm. eh, day wax pour affaire politique ma ne gars yi dégg ko mu wane ne léegi ànd ak Sonko mi ngi jàppale Sonko mais mais ay waxam moom loolu loolu loolu mooy mais mais jàpp yu bëri yi aussi arrestation yi bis bu set ay jegeñaale Sonko ñu leen jàpp dugal ci kaso bi loolu est-ce que tamit nekkul loo xam ne. jàpp ñu la jàpp ngi sa mbokk te jàpp nañu journaliste yu bëri mais nga yéeg beneen ànd su ànd ba tojee yow la donc d' abord. ci leer na leen jàpp gi ñu jàpp yéen defu leen ko woon 2012 2011. non jàpp nañu ñëpp ñun tëj nañu ba jàpp nañu ku ñu jàpp da ngaa def lu jàpp la mais nag gis nga fii Sénégal dafa nekk ku fi jàpp sa doom nga ne waa sama doom da doon jàng école moom kay deful dara ah policiers yi kay ñoo tëb jàpp ko sama doom kay ci buddu kër ga la nekkoon sama doom kay rey nañ ko ah, moom kay dafa doon dox ñu dóor ko bal loolu da ngay dégg c'est-à-dire que nit ñi nañ yar seen doom yi ni kilifa dafa nekk kilifa nga xam sa doom ci li muy dem mais am élève mu war a def examen nga bàyyi ko muy taxawaalu ba gaa yi tëj ko jàpp ko ci kaso bi wala ba ñu damm loxoom wala ba ñu damm tàngam yaay ñàkk yow nga ñàkk ëllëg nga bàyyi sa doom yaakaaroo kenn lu mooy sa doom muy xëy war dem liggéey indi def ci kër gi nga bàyyi ko muy tambambaal di taxaw ba gaa yi jàpp ko ba ñu tëj ko sa sa affaire la waa Sonko yi ñi ngi ci jàpp ñëpp kenn ku nekkoon sa kër duñu la jàpp ku doon defar ay cocktail moo la too hmm. ñoo xam ne leen jàpp ay jigéen ak ay góor ñu fekk leen ñuy wut ay butéel jël ay gaz di defar pour taal dëkk bi ñooñu dañ leen war a jàpp koo xam ne tam dañ lay fekk nga yore arme ci manifestation bi wala ngay lakk boutique bu jàmbur wala nga dem lakk këru jàmbur mais dañ la war a Sénégal nag gars yi lañ bëgg mooy yow da ngay def lu neex yaa ngi lakk a yi yaa ngi lakk yaa ngi yaa ngi lakk këru jàmbur yaa ngi sàcc alalu jàmbur yaa ngi fekk ay jigéen ñuy daganal viol ñu violé benn nit Ziguinchor benn jigéen ci université ba ci manifestation yi ñu viole juróomi jigéen fii ci biir Ndakaaru violé juróomi jigéen fële ci bari ñi te nee nañ am na juróom-ñaari viole ñu def ñaawteef yooyu gars yi ne bu leen kenn jàpp bu leen leen wax dara parce que ay manifestant lañ parce que parce que Macky Sall daa bëgg Sonko du dem euh, nekk président mais Sonko du du nekk candidat mais Sonko su nekk candidat moo ko teg boppam parce que fee su fa dem toon kon du nekk ko kon kenn du ko jàpp tey euh, kii DSK bi ñu jàppoon en France bi ñu jàppoon aux États-Unis te mu demoon ak Nafisatu Diallo boobu la femme la da nga fàtte. Mhm. <coughs> moom lu mu defoon danaan ñëw neexle euh, mu xamante ak ndaw si bi bi bi bi yi xamee ne moom day su demee États-Unis day neexle foofu gars yi de wax ak ndaw si mu ñëw neex le mu pare femme ne ko nag maa violé ba ñu demee ba ca fin ba la ñu gis ne moom femme bi amoon daan nañu wax amoon nañu ay numéro téléphone. la gars yi disqualifié ko comme ni ñu des comme ni ñu disqualifié affaire kii bi rek. Mhm. affaire Sonko bi ni ñu ko disqualifié andi ko ci lu gën a woyof ki lañ ko disqualifié andi ko na ko fayal xaalis mu dem. donc affaire yi noonu la. c'est-à-dire que ku deful dara. Mhm. kenn du la tëj. waaw léegi euh, dernière question bi une minute mu jeex njiitu réew mi dañ koo gis euh, mu ànd ak délégation africaine ca Ukraine ak euh, ca Russie ñu bari gis ne dëkkam am nay jafe-jafe am na ñu bari ñu fi faatu bindul. Euh, yoru fi sondeel dem ba réewum jàmbur loolu ban gis-gis nga ci nga ci am. xam nga euh, sama maam doon na wax ne soo demee fekk gars yi doxee benn dëkk bu ñu doxee benn doxalal benn comme ñoom deuxièmement Sénégal ku fi amoon dëj tey balaa ñetti fan ba beneen dëj am sa sa kër suñu lay jaaree ak suñu jaaree da ngay bàyyi dëj ba nga dem ci beneen dëj bi te Ukraine Afrique dafa am intérêt parce que ñun ah, réew mu ndaw lañu société réewu naar yi ngay gis yëpp. muy Maroc muy Algérie muy Tunisie muy euh, Libye euh, muy euh, Égypte blé bii blé blé bi ñuy lekk muy blé blé dur ki la defaree seen pâte alimentaire yi ñuy lekk yooyu foo lañ koy liggéeyee ñun ñii blé tendre bi mooy blé bi ñu defalee boulangerie bi mhm. ñun ak yeneen réew yi foofu lañ koy jëlee foofu lay jóge loolu suñ ko amatul ñun duñ toog fii xiif boulanger bi ñu ne fii ëllëg di manifester ne amuñu mburu ensuite ñun engrais bi ñuy utiliser engrais bi ngay gis nii ñu koy utiliser ak fertilisant yi. loolu yëpp foofu lañu koy foo lay jógee. donc céréales yi blé yi maïs yi lu ci ëpp yëpp foofu lay jóge waaye loolu ñun loolu di jógee foofu yàlla mën a def ñu man naxanteeg ñoom ba nga xam ne lu ñu geer geer yi di génn ñun ñii duñu am duñu xiif du ñu mar mais loolu rek jaroon na président bi président Macky Sall bàyyi li muy def yëpp mu dem ndax ñu am engrais suñ suñ paysans yi su amul engrais. tool yi yow xam nga ko yow mbay mi xam nga xam nga du baax. donc yooyu mu ñaale waa dëkk bi def benn. chaque conseil conseil des ministres nga dégg mu jaale mu jaale nit ñi président nag dafa war a nekk kilifa du nekk lu jóg mu jóg mu jóg mu taxaw di wax. amuñ ndam nag président am am ñu koy waxal amuñ ndam ci Ukraine bi de. non am na ñu ndam waaye yéen a gisul ndam bi xam nga ñoo xam yow yaa gën a xam ne Ukraine ak Russie guerre la boo xam ne du guerre boo xam ne da ngay xëy nga réglé ko tey ëllëg. parce que guerre survie la et bu Russie ndax ndax Russie yi ndax Russie yi xam nañ ne américains yi ak occidentaux yi dañoo bëgg a installé wu foofu pour jege leen donc guerre bi neexut a réglé. xam nga guerre bi li ñu mën a réglé. Mm-hmm. Afrique yëpp booloo benn baat ñu am ñeenti président ñu dem waxal leen te Afrique kenn mës koo compté fenn loolu rek ndam la. cest à yi kenn mësu leen a boole moo leen boole ci ay réunion ba mm-hmm. pare guerre eh, xam nga amuñu ndam nii ngay wax nii. Oh. lañ fa am ay pétrole ak ñu leen doon jaay ak ak euh, blé ak euh, engrais bi day continuer président ah ñii kat de façon ñun nañu fexe ba gars yi am li ñu bëgg parce que dañ leen di soxla ëllëg Russie day soxla ëllëg Afrique soxla Chine soxla euh, Inde soxla Euh, BRICS yi ay Brésil ak yooyu donc dafa am maslaa bu ci biir loolu laa bëgg nit ñi xam ko maa lay gërëm bu baax di la a jërëjëf euh, monsieur le ministre Farba Senghor mbokk yi moom la ñu invité woon euh, tey mu nekk njiitul mouvement mbooloo askan wi les libéraux républicains mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm jàmm.